waaw euh, sama rakk la euh, man maay président supporter Ama Balde moom di président am parce que fii képp kuy bëre xeebu ma mag xeebu ma mbër mag ak mbër mu ndaw képp kuy bëre maa ngi sa ginnaaw dama mobiliser supporter yi dem supporter la sama rakk la ba mu fi mujjee ça fait 15 jours laa fi mujj seet si la ci borom bu baax la Baye Fall la barki alxuraanu karim ndax Pikine ndik boo fi nekkee nii ba am fi coow di bëre xale yi topp la rek ku ne xam nga ak waxu pikin nga maîtriser boole xale yëpp rek comme comme kooku jàmbaar la. ma koy jaale pikin di ko jaale aduna di ko jaale Sénégal di ko jaale quartier bi surtout quartier bi mu dëkk nii muy xale yi wax dëgg yàlla depuis bu mu tëddee ba tey bàyyiwuñu ñu ngi si guddi ñu ngi si bëccëg. waaw ñooñu tawatam deux ans la am tawatam am na ñaari at xam naa bu ñu génnee ci bu ñu génnee ci weer bi euh, le dix huit mu ñu eggee si weer bi le dix huit lay am lay mot deux ans la tëdd ba tey. ci deux ans nga tëdd ko si góor ku dem jug di doxi ay soxlaam di entraîné di bëre di jàpp gars yi di leen dóor ñuy daan dem ba tëdd mënatul dara boppam kon koo xam na métti topp na ko waaw ñi ko war a taxaw taxaw nañ ko ay mbokam ay xaritam. ñi mu fawandool taxaw nañ ko bu baax a baax ay mbokkam ay xaritam ak ñi mu fawandool taxaw nañ ko bu baax a baax a baax ñu bokk dëkk ci koñ bi mu nekkoon ku baax ku yaru bëggoon nit man ak moom ñu partagé lu bëri kon tey bu luy amee vraiment metti na trop mais dañuy delloo xel yi ci suñu borom xam ni yàlla moo ko moo ko joxoon te moo ko jëlaat vraiment nekk na lu métti métti métti métti métti parce que tëddaa bi yàgg na vraiment vraiment métti na trop loolu lañ fu mu dem ñooy ànd ak moom buy entraîné ak lépp lépp ñoo koy gérer ñun wax dëgg yàlla suñu borom tey ñu xëy ñàkk ko quoi mais dañuy sant yàlla suñu borom waaw dañuy sant yàlla suñu borom quoi di wax moom moom ñu ko joxoon quoi moo ko jëlaat waaw ñu ngi sant yàlla bu wér quoi waaw. man laa grande sœur am laa toppul sax ci man mais abi man dama koy ñaanal rek fa mu jëm na ko gënal fii ñu ngi koy ñaanal lépp lu mu amuloon ci àddinaam rek yàlla na ko dab fee yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam yàlla na dem ci àjjana yi gën a kawe waaw di gërëm sama yaay sama yaay muñ na lu ne muñ na lu ne ñun abib sax ñun abib moomuñu ko waa koñ bee ko moom waa àdduna ñoom moom abib ñun moomuñu abib dañoo bokk ak moom mais moomuñu ko mais ñuy gër am solo mooy na ko yàlla may euh, àjjana firdawsi ñu ñaanal ko parce que ñaan ñaan fi des ñu ñoo xam ne ñaanal ko ñoo xam ne euh, xale yi di ñëw nañ jéem a roy si moom parce que mbër la woon boo xamante ne euh, vraiment doo doon respecté na mag ñi respecté na xale yi parce que mooy mbëru xale yi la sax parce que boo xoolee fu foog fekk ay xale lay àndal mun na dox si mbedd def fa deux heures temps wala trois heures de temps si ay di waxtaan ak ay nit si mbedd mi du sigi ba xool nit moo tax génération bi war nañoo xool si moom surtout mbëri ndaw yi war nañoo jéem a xool si moom jéem a roy si ñoom préparer ñoom seen avenir si tous les plans da nekk mbër mu mag nga am tolof tolof coono yëpp fekk la si. ñoo njëkk def euh, ñu koy ketal fii am na ñi nga xamante ne tey man xam biñ koy ketal man xam naa ne jënd lu ñu abibulaay aspirine ñoom dañ doon diingat dégg nga boobu sonn na ñun ñu jóg boobu dam ci remercier Modou mbay bu 2STV parce que tey bi ñu defee si bantamba bi ci jardin bi loolu moo indi yóbbu Tunisie bi Pam Ndong ma koy remercier bu baax Pam Ndong wax dëgg yàlla jël ko en charge ñu dem yóbbu ko Tunisie mooy benn tànk bi kenn taxawu ko amul ku ko taxaw lu dul xaritam yi ak ay ñi muy àndal ñi muy àndal Pikine ak ay xaritam mais kii nii ak ni mu mel ci Pikine warul doon di am yenn problème yi te waa Pikine duñ jug jàpp ci bu baax a baax waaw. bu ci war ñenn ñi la rek ñun ñi dëkk ak moom xam rek ak ñoo xam ne dëkkuñu sax biir Pikine Orsar la ñuy jig a ñëw di dëggal seen bopp di joxe ci booy bi te ñu fi dëkk mënuñoo osé génne seen mooneen ñun ñoo koy jaayante fii nii booy fii sëli ñoo koy jaayante ay pambaake gars yi ñoo koy jaayante mais autorité Pikine yi gars yi ñun gëmuñu leen ñun xam nañ fu ñu féetoo ak bu affaire yi jeexee ñun xam fu ñu féetee ak ñoom xaalis mbër yi ñuy dagg dañ ko génnee mbër bu sonn ñu dimbalee ko ko ancien gloire yaa ngi fi ñuy tëdd ay Pape Boy Bambara la Balla Gaye CNG duñ dara amuñu fi njëriñ nañ fi jógee gars yi soxlawuñu leen Alioune Sarr liggéeyul gisuñu leen ñoom buñ fi sax ñëw nañ toog kon nuñ toogee woon seetaan ko ba yàlla jël ko nañ toogee noonu di ko seetaan amuñu fi dara luñ fi dara lañ def gars yi xam na leen war a bàyyi jënd nagu nagu dëj ñu koy jënd dañ war a bàyyi tey jënd ordonnance yi su nit yi feebaree jàppale ko ñooñu moom wax dëgg fa yàlla loolu moom gisuñu leen wax suñuy mag ñun ñu ñu defoon mag ñooñu moom taxaw nañ ci ak buuba maa ngi koy gërëm sama rakk bu baax la fi Habib laa di ngeen boo ñun kooku mooy sunu pap mais kooku tam sonn na torop ci feebar bi képp ku ci feebar Habib laa rek yàlla na la yàlla fay Souran Souran moom Souran yàlla na ko yàlla fay xolom man su ma fi toogee di wax sax damay jooy. xam nga lan moo tax mënuma wax waxu CNG balaa ngay waxu waxu CNG sax. nga ñëw waa CNG kenn nga gis ko fii mu ñëw jaale si Abibulaay gis wa xam nga balaa ngay jàpp se jaale laa la wax mbër yëpp nag gis naa leen Gris Bordeaux ñëpp ñëpp ñëw nañu fii comprendre nga mbëru Pikine yëpp a ngi fi wax dëgg yàlla ñu bokk ak ñu ñun naqar bi mais jàppale laa la wax Pam Ndong damay wax damay waxaat maire de la ville maire bi nekk ci kaw muy maire de la ville ñun waa pikin Macky Sall ki ñu ko fi tegal benn njëriñ amaluñu ko amaluñu benn njëriñ yaa ngi may dégg gis ka nañuy jóg ci ñiy feebar bëri na du du Jules Balde Junior kese ñoom ñooñu day ñuy naan ay kilifa ñu man ketal naa ko bi ma demee dañ ma romb yaa ngi may dégg biñ ko ketalee yàlla def mu ñu kayit bi génnaa la ñu yóbbu ko Tunisie tànk boobu wër na beneen tànk bi jëlaat. amul kilifa bu nekk pikin lii dafa ruslu si waa Pikine kilifa yi nekk Pikine tey. mais autorité Pikine yi gars ñun gëmuñu leen ñun xam nañ fu ñuy féetoo ñoom bu affaire jeexee ñun dinañ xam fu ñuy féetee ak ñoom booy gis nañ ni ñu ko taxawoo fi dafa tëdd deux ans barki Serigne Saliou Mbacké cinq millions war na ko mën a dugal kaaw ba faj ko gars di ko seetaan mais lépp sëñ Fallou yàlla baax na ñun nañ koy ñaanal yàlla yërëm ko rek waaye CNG gisuñu si kenn booy bi yàgg naa bëri ñu koy dagg booy bi ñu ko dagg si ay combat am kenn mënu loox lu mu toll te kenn gisuñu si kenn amul kenn ku si ñëw si membre CNG yi fii ñëw gis ñu fi kenn. man CNG awma dara lu may wax ak ñoom quoi wax dëgg yàlla awma dara lu may teg ci kaw CNG balaa may wax dara ci CNG ñu ñëw jaale si yow ku jaale siwul nu muy dimbale ah nit ku bokkoon si yow ah bokkoon ci yéen ngeen koy dagg mu am fa licence am fa tour bëre presque cinq grands komba xam nga. balaa ngay dimbali nit kay nga ñëw fii jaale si ko amul kenn ku nekk CNG koo xamante ne gis nañ ko fii si buntu kër gi mu ñëw jaale si xale bi lii dafa ñaaw ah. benn bennum Gris Bordeaux lañ gis ak yeneen mbër gis nañ fi bépp écurie bu fi nekk démb dafa mel ni ñii duñu ay adversaire taxawu nañ nag Abibulaay ah taxaw nañ Abibulaay am nañu si taxaw mais soo nee benn ñaar du ñett kenn lañ ci xam moom koo xam ne def na si li si war a def muy Pape gi Ndong si autorités yu mag yi fi nekk Pape Gorgui Ndong la ñuy saluer tan si moom à part ñooñ ñu ndaw ñee fi nekk ku si mel ni ay Rama Maki ak Marème Fall Ibadou Matar Ba. taxaw quoi ku ci mel ni sunu frère Pape ku ci mel ni euh, Pape Gorgui Ndong moo ko yóbbuwoon Tunisie euh, ñëpp jàpp nañ ci waaw ñëpp jàpp nañ ci ñëpp mburu Pikine yi tamit jàpp nañ ci ku ci mel ni Ama Baldé ku ci mel ni Boy Niang Ama seen ñëpp jàpp nañ ci daal xam naa nag sunu borom li la ko li li la namoon ci moom dañ koy borom yàlla xaaree ko àjjana ñoom ñëpp daal xale yu góor yi maa ngi ñaanal ñëpp mënumaa lim kenn mais maa ngi ñaanal ñëpp ñëpp képp ku taxaw woon Abibulaay rek maa ngi lay ñaanal ci barkeel Muhammad yàlla nañu am lépp lu ñu bëgg seen biir xol yàlla na leen yàlla taxaw comme ñoom ni ñu taxawee Abibulaay ñëpp nag mënumaa lim kenn bu ma limee rek damay jum duma matal mais maa ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp ku fi nekk ku fi nekkul yëpp maa ngi lay gërëm mënuma fee nekk di wax wax ju bëre parce que mënu mëneewu ma wax daal